daal di alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi almisbaax naanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallaahu xëy si nañu ci séminaire bi seminaire baa ngi sori macha allah gan ñaa ngi ñëw saal bi fi mu nekk fees na ba abal nañ ñu beneen saal ba ñu ngi def écran géant waaw tabarkal la ndooy RTS mu ngi ci biir ma nga ne di waaxu di defar micro yeeg ñoom seen yooyu merci ndooy <laughs> waaw ma nga ne mooy defar bagage yeeg ñoom seen yooyu mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot yàlla na nu dégg waaw yàlla na nu yàlla may dégg alfahm la tudd yàlla na nu ko yàlla may bi ñu yëkkati jataay bi démb ci séminaire bi dañu nekkoon ci tomb bu am solo mooy xalabatul hawa alal xaq nit koo xam ne kii bànnee moo not dëggam bànneex not dëgg su boobaa kon dëgg du fitti dëgg de su ci jot lu tax bànneexu ko not dëgg-dëgg rek la gis nga léeg-léeg nga dégg ci penc mi rapport sàngam épingle na diw bu alxaq ñëwee diw ma ma dañ koy woo waaye bu alxawaa ñëwee kenn du la woo bu alxawaa ñëwee alxawaa bànneex kenn du la woo waaye bu alxaq ñëwee dañ lay woo gis nga circulation beeg accident yu bari yi bu alxaq ñëwee ku ko def doo ko defati waaye bu alxawaa ñëwee ku ko def danga ko defaat dana xew xewati gis nga bu alxaq ñëwee ku burli fa duutoo ko burli waaye bu alxawaa ñëwee nit ñi mënoo ñu dëkk ci burli fa bu alxaq ñëwee kenn du fekk lu ñépp bokk nga jël ko jaay wala nga jël ko yàq bu alxa bu alxawaa ñëwee nag lu waay for defe na yàq moom bu alxaq ñëwee ko fi rey nit duutoo ko ñaareel waaye bu alxawaa ñëwee rey gi day takkar naa si rek tabarkalla mu ngi noonu rek noonu lañ ko toppe nag alxawa alxaq alxawa saa boo xamee ne alxawa moo gañe alxaq pénc mi du dem saa bu alxaq gañe alxawa nag ñu tàmbilee doog yoon wa daal di dem ndeysaan yàlla nañ dem waaw ngeen dem waaw ndeysaan fu ñu jëm émergence ma nga nëla ci sunu kanam nuy siin waaye bu fekkee dañuy téqante tànk ak kurpañanteeg xuloo ko nangam bu ñu nee demit dem dana yéex lool ndax di di xuloo di dem gaawut mbokk yi séminariste yi gan invité yi waaw mes parents waaw maa ngi jeexal ci feebar yooyu muy juróom-ñaareelu xeetu feebar walla juróom lu doodaan mooy lan baynama huwa kaahin wa maa yajibu an yakun li nekk ak li war a nekk li nekk ak li war a nekk allahu ndaw lu jar a xàmmee li nekk ak li war a nekk saxsiya islamiya personnalité personnalité jullit personnalité nit personalité politicien personnalité nitu daayira ah tey dafa am lu ñuy tuddee alwaaqe da ko war a nangu alwaaqe mooy ni sam pénc mel su ma demee ci formation bi muy mujjee defal xale yi incha allah ci ci ci ci séminaire bi danañ ci dugg ci culture alwaaxe maanaam nit nit ku bëgg a changer dangay am culture say nit waaye bu amul culture nit ñi amoo culture alwaaxe boo jëlee culture jàmbur xëpp leen ko duñu dem waaraatekatu Afghanistan ci afghan bokkut ak nga ñëw Sénégal nekk af nekk benn afghan di fi waaraate mukk un waaraatekat saoudien bu ñëwee fii du noir mukk sunu waax yi ñoo bokkut xam nga nit koo xam ne boo ne ko kaay añ mu ne suur naa ñëpp toj ree ba këpp bokkut ak nit koo xam ne kii boo ne ko kaay añ di wax bëgguma waaw ah. <laughs> xam nga ñun tey boo ne woon nit kaay añ mu ne bëgguma lay ci senegal gii àdduna tukki kaay añ mu ne bëgguma waaw waaye ñoom am na ñoo xam ne boo ne kaay añ mu ne suur naa foofu la àdduna tukkee ñoom léegi nag suur naa ak bëgguma lu loon wutale <laughs> alwaaqi moo tax loolu culture la bu nit di jàng mbokk yi dafa am benn bés ci jàng ci ci xam culture maam Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ne cib dëkk ci cib dëkk dëkk ba dañuy dañuy semb semb mooy dugub ji bayoon ci nawet bi ba góob ko ci noor bi lañuy def cim sàq bojj ko ba mu xaw a ba mu xaj ca sàq ba nga xam ne bu jigéen ñëwee di bojj dañuy mottali rek looloo tudd semb semb nag ndeysaan sunu jàmbaar ja sunu mbokk mu fàllu siise sëtu maam allahu akbar nee na semb mooy danga daan wax sama yu mbay gala waaw day ànd ak day daan daan ànd ak ay ay bàkk ki taasoog taaxuraan waaw sama yu mbay gala waaye loola jolli lool sëñ bi dégg ko ne loolu lu mu doon ñu ne ko dañuy semb comme xam na semb mu dégg wax ji mu xam ne wax ji dëppoowut ak li xew bay nawet mi ni mettee nga jeexal mbay ma am ci dugub di ko semb ca sàq ma di wax sama yimbay gala sëriñ ba daal di jóg rek nit ña topp ko mu wuti ña doon semb ba leen di jub rek ñépp taxaw allahu akbar ba mu leen di jub ñëpp taxaw ñu doon sama yimbay gala noppi ñu doon semb noppi ñëpp wàcc mooy leen baa di ngeen doon wax léegi dëppoo wut ak li ngeen doon def ndax ku bay nawet ña mi weer noppi ci am dugub di ko def ci sàq leneen nga war na wax lu dul lii ngeen di wax waaw waaw tabarkalla ñépp na tekk bëgg mu wax leen lu ñu war a wax kon mooy da naan yaa rabbi zidni xayraati <laughs> waaw bu doon télévision ma daajal leen ko comme télé la rek rajo la comme sax waaye daal yaa rabbi zidni xayraati xam ngeen son boobu ak mel noonu bu ko Saïd lu jàppoon Saïd lu mala ci géej waaye yàlla na ko yàlla yokk yokk wér bu ko jàppoon bu la ko bu la ko bu daajalee te nit ñi semb ci kaw sàq mi day dëppoo lool loolu mooy lan mbokk yi mooy li nekk ak li war a nekk li nekk te wërta nekk nan lañuy def ba li wërta nekk jóg fi li war a nekk nekk fi loolu mooy pédagogie bi am nuñ koy defe li nekk danga koy danga koy reconnaître nangu ko ya ca jag nga jël yépp yi jagul na nga jubbanti ko waaye dara baaxu fi kenn du ko wax waaw mandikat ba daay ñëw ci bitig ba ne moo ne ne borom bitig bi jaay ma riclees loolu la ko wax jaay ma riclees mu ne ko oo ma riclees mu ko amoo dara ah mu ne ko amoo dara te kat bitig baa ngi fee del waaye moom comme moom amul li am rek mu ne ko amoo dara nettali woon naa leen ka demoon hôpital di laajte tàntaam ñu ne ko tàntaam kat ma nga ca morgo ba mu dem ca masoor ba dóor taabal ji ne ko na ñëpp dee ah loolu la ko wax na ñëpp dee cest à bu leen fajati kenn bàyyi leen ñëpp ñu dee Moussa gay ñëw ne ko lu tax mu ne ko sama tante moo dee waaye léegi tantam day dee rek tante yëpp dee wala malade yëpp dee loolu loolu la xeewati am mbokk yi baynama huwa kain wa ma yajibu an yakun di loolu mooy tax résultat yi léeg di wuute loolu mooy tax léeg-léeg résultat yi war a am léeg-léeg muy wuute ñàkk xàmmee li nekk ak li war a nekk ñàkk a xàmmee li nekk ak li war a nekk li nekk te wërta nekk nuñ ko fi jëlee waaw ndeysaan li nekk te wërta nekk nuñ ko fi jóge nuñ ko fi jëlee hmm? su ko defee boo xamee li nekk ak li wër nekk nga gis li wër te nekk di tàmbalee nekk nan lañ koy gàttandoo loolu wolof naan lii raam ca ñag ba la jëm séminaire si yi ni ngi dégg waaw yëngal nañ seen bopp nee nañu waaw su boobaa li nekk li nekk te wër nekk programme ak plan moo ko fi jëlee programme ak plan moo fi jële li fi nekk te waru fee nekk waaye ay wax munu ko fee jëlee ak coow ak dóorante kurpañ mukk munu ko fee jële su ko defee li nekk te war te nekk ay jumtukaayay tax loolu mën fee jóge jumtukaay nag léeg-léeg kuy liggéey ci diine da koy soxla waaye léeg-léeg day day day xaw a kii ndax sunum réew duñ jàppale kuy liggéey ci diin ndaxi jintukaay waaw ndax jintukaay jintukaay yooyu tey bu fekkoon daf ko bëgg bëgg ab studio naa jël par exemple sëñ Mbàkke si la muy def mis baax wala ndénkaan seen Mbàkke bëgg benn table de mixage bëgg ordinateur bëgg ay micro waaw bëgg site bu mu bu mu ubbi waaw bëgg barab bu mu ko def nangam nangam nangam te fi nekk dajale cent mille te ko ticc waaw ni ma dajale million tey <laughs> yàlla ma yàlla yërëm dama nett la naa sama sama ñaari million la ma yeboon li leboon ndeysaan sonn ci wétt ndeysaan ñaari at mënumaa dajale ñaari million yé ma yàlla yàlla mu yàlla yërëm <laughs> waaye kere <laughs> yëm foofu sax waaye imkaaniyaat yi te mooy jumtukaay yi nga xam ne mooy fexe ba li nekk te war te nekk jóg fi loolu ay jumtukaay la dañ wax ni ab daaya da koy soxla ab jàngalekat daf koy soxla waaw suñ waxtaan ba ak professeur Iba Der am yàlla ko yàlla yokk wér waaw waxtaan wu am solo waaw jumtukaayu ku bëgg li ngay wax ñëpp jot ci ndeysaan loolu nag léeg-léeg jumtukaay yooyu du am waaw nga nekk fi rek day ndeysaan di waxtaan ba benn bi si rek nga màggat mbaa nga tëli mbaa déggatuñu la anamu waaw bu dee ko xew day xewi bu dee gone day màggat bu dee ko wér day wéradi bu dee koy dund tabarkàlla maar day yem si yëpp day am léegi nit ñi nag bu doon Soudan bu doon Soudan léeg-léeg ma léeg-léeg ma cité ko ñoom Amadou Loum Samb bu ñu déggee tabarkàlla xam naa tax mi ngi ñëw daa ak seegul bu dee Soudan ñoom ni ñuy toppee nit ku ko koo xam ne jàpp nañ ne war nga am ay jumtukaay loo soxla ci jumtukaay daañu la ko defal maa la ko wax de daañu la wutal oto ñoom wutal la studio wutal la nangam wutal la lépp daañu la ko wutal lu tax parce que loolu bu ñu la ko wutalee mooy yaatal li ngay def waaye bu dee ci suñu réew mi ah affaire bi da neex na waaw rek wasalaam foofu kat lay yem. bëgg xëy xew yi <laughs> waaw bëgg xëy xew seen na mbekk si la sànq muy muy xëm ngeen baal ma muy xëm waaw sëñ na mbakk si la sànq muy xëm waaw mu bind ko aska këyit ne ko lu xew ndeysaan muy xëm rek <laughs> bi mu xawee ximili mu ne ma ndeysaan sëñ mbàkke mu ne ma sëriñ Cheikh dafay jaaroon mu ne waaw mu ne jamono jim fii jaar ak tey yim doon wax xoolal ni ñu koy gisee tey mu ne ko dëgg la de mu ne ma lu tax ñuy jàngale ci rajo yeeg télévision yi duñ leen def noonu organiser li ay séminaire ñu jariñoo ko nu bindal nu ko door a dem waaw daal di sëggaat ci taabal ji dey ndeysaan Mansour Ndiaye jox ko ndox ak soir waaye jar na jooy donc maa yakunu wa maa yajibu an yakun li war a nekk lu tax nekkut mooy jëntukaay yi koy def la nit ñi parewul pour wut ko li li war nekk nag moom ay jëntukaay mat na sëkk li war te nekk booy ndagar walla am ko booy taasu am ko looy man di def rek mën nga koo am lu tax parce que ñooñu pare nañ ñoom pour def seen yëf ci jëntukaay yooya loolu la loolu la seytaane waxoon la uzayyinanna lahum fil ardi wala uxrijannahum ajmain ak itam ko am asheytaanu yaidukumul faqr wa yamurukum bil fasha ko yaidukumul faqr mooy boo bëggee def ci diine seytaane la yow ustaas yëpp da nga leen mën a defal loolu la seytaane wax ustaas yëpp da nga leen mën a defal waaye ñoom sax ñu am daañu la ustaas diw kat kat lay war loolu la seytaane ca lay nekk ca lay nekk ba jeexal waaye bu doon koy ndagar walle nag aha moom du la wan lam am te kat ñii ndagar walle ñoo ëpp la ñi ñi jàngale diine wax la ko tey ñii ndagar wala ñoo ëpp la ñuy jàngale diine waaye ñii ndagar wala li ñu am par bés di ko am par weer di ko am par at ñi ñi jàngale diine xa amuñu asaka ja sax nag ma wax la ko waaw moo tax léeg-léeg ñu dem fenn foo xam ne fii ñii ndagar wala ñoo yilif ñuy jàngale diine waaw ngeen baal ma ci ton bi may waxee parce que je suis un peu énervé damaa toll ci <laughs> question bu am solo mooy maa yakunu wa maa yajibu an yakun li nekk ak li war a nekk ñu xàmmee leen li nekk ak li war nekk ñu xàmmee leen ndeysaan mu ngook kon su boobaa danañ mën a xàmmee bayna ma huwa kain wa bayna ma yambaqi an yakun kal farq bayna al xaq wal batil kon daañ ko xàmmee ni ñu xàmmee diggante dëgg ak caaxaan noonu lañ koy xàmmee kon ndaw ñi yéen ñi ci salle bi les séminaires séminaristes e les invités waaw et mes parents ndaw ñooñu dañ leen war a yar ci bëgg njàmbaar ak bëgg victoire bëgg njàmbaar ak bëgg victoire ba ndaw lu def njàmbaar mbaa victoire ñu récompenser la neexal la ba ndaw ñépp bëgg mel ni nga mel waaye bu dee ndaw loo xam ne bu nekkee ci lële ca lañ koy récompenser bu nekkee ci lii ñëpp seetaan ko dañ mu jàgg ñii dañuy bàyyi lii ñëpp dem ci lële sunu borom nee na ca suuratu Zuxruf bu nit ñi nite woon dëggantaan ñu ne ko waaw mu ne kon ku ma weddi ma defar sa affaire ah mu ne maa la ko wax malheureusement bu nit ñi nite woon dëgg yàlla mu ne ku ma weddi ma defar sa affaire waaye fi ne bu defaroon affaire ñi ko weddi ñi nitewul weddi ko ndax dañ jàpp ne ku bëgg sa affaire baax fokk danga nga koy weddi bu fekkee penc mi dañoo jàpp ne kenn ku ne dangaa war a dem ci def ca lu baaxut kenn du encouragé kenn waaw keroog suñu anniversaire bi suñu directeur Babacar Touré junju na ko fii waaw junj na ko fii waaw yàlla na ko yàlla yokk wér waaw te soqali tool ba <laughs> te soqali tool ba waaw yal na ko yàlla yokk wér te soqali tool ba <clears throat> loolu kon dañ ko war a xàmmee waaw xale boo xam ne dafa bëgg njàmbaar ñu jàppale ko ci bam nekk jàmbaar fan yële damay seetaan jënn imam ca fa ca fa Sadio Mané footballé imam ja xutba ba ca saajo Mané la ko def gis nga boo ko defoon senegal gii laa ilaaha illallaah imaam ji xutba di xutba ci ci ci nit ci Sénégal gii nga jël benn politicien ñu ne waa ji day xu day xutba tey ci comme yu xutba ñu ne far ba Senghor ci lay wax laa ilaaha illallaah ñëw naan toolu Farba Senghor ba nangam nangam ñooy julli ñooy jël seeni sijaada dañ ñibbi mas nañ koo fekkee benn bi suma ma tuddoon jàkka ja gaa yi xam ko ilimaan ji dañuy dañuy dañuy dañuy julli it rek mu daal tudd benn maire ci maire yi waaw nga seen jël seen si jaar ne ko noonu politique ma ne ëw àdduna tukki na àdduna tukki na kon ndaw ñi dañ leen di yar ci atumuux waaw bil xaq yar leen ci al istilaa ala al baatil ndaw ñi yëg ne ñoom ñoo ëpp ñoo ëpp ay caaxaan ñoom man ay caaxaan te loolu xeebu na ci seen kanam waaw te ndaw bañ a gëm doyadi bañ a gëm koñor koñor bañ a gëm yonjox mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot séminaire bi juróom ñetti feebar yooyu ci lañu nekkoon ci ay bés gi àgg ñu génn mooy ni koy Mansour waxe bi ñuy ubbi jataay bi xalabatu nazariya alal waaqiiya ab feebar la walla doodaan la te mooy théorie bu gañee pratique xalabatul mithaaliya asalbiya alal xarakiya feebar la te mooy exemple yu négatif yi bu ñu gañee action troisièmement xalabatu tatarruf alal ictidaal boo xamee ne ëppal dafa gañe gañee yem penc mi day yàqu ndax loolu ab feebar la xalabatul jusiya alal kulliya bu fekkee détails yi détails yi moo gën goro grossiste yi su fekkee nu la goro goro yi àdduna tukki bu fekkee a shaxsiya moo moo not al al aqaidia maanaam personnalité not pas-pas ci feebar yi la bokk xalabatul hawa alal xaq bu fekkee bànneex moo not dëgg pinc mi tas baynama huwa kain wa ma yajibu an bu ñu xàmmeewut li nekk ak li war a nekk penc mi tas mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot séminariste yi bu ñu del siwaatee incha allah euh, li tàmbalee ëllëg ak ay bés génnu jëm lu jiitu conseil bi incha allah <laughs> ndaw ñi ñoo ma téye de bul demagum danañ ñëw ci uturu idaadi shababil muslim ndaw ñi dañoo bëgg ñu waajal leen ndaw ñi nee nañ ñoom soxla nañu ñu normaliser leen ñu ànd ma ak ñoom dem école normal normale ndeysaan ñu normal normaliser leen ci jamono ñoom Amadi Coulibaly loolu laa ko daan wax école normal pour normaliser kon muhimma bi xaar ndaw ñi wax naa leen feebar yi ba ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne li tàmbalee tey jëm ëllëg ñoom ñëpp dégg nañ feebar yi te noté nañ ko ci daañ ci faju ministre bi ndaw ñi yeble na fi moom tam la <laughs> mu ngoog kon bu nu delsee incha allah dinañu jéem a indi loolu te waajal ndaw ñi lay doon ci ñetti tomb yu am solo waa waajalaat leen ci yeneen ñetti tomb yu am solo waa tomb yooyu nag bu leen sàppe bu ëllëgee ci alxames ji incha allah nu ñëw ci noog yéen ñoo ngi jéglu soxna yi di jéglu sëriñ si xam naa am na ñoo xam ne bu ñu fi toogoon defee ko nu gën nii may def gën a leer lii may wax waaw suñu mbokk suñu aadi mooy wax ne eh, ñàkk fasaaxa moo tax ak li muy fasaaxa fasaaxa ndeysaan yàlla na ko yàlla yokk wér